bisimilah mbokk yamaat mbégte ak contentement ak yéen ci tënkum xibaar yi nees kiis lay doon. la ca gën fës ñu daal di koy doore ak déclaration de politique générale ak réglage ya ca daal tukke tukkee gannaaw réforme yi nga xam ne rek daal di nañ koy amal ngir rek daal di defaraat lii di règlement intérieur bu assemblée nationale niki tey jii nag bu ñu sukkandikoo ci enquête mi daal di fësal boobule information député yi nga xam ne rek ñoo nekk ci groupe parlementaire Benno yi ak Wallu ñu ngi ci ay waxtaan niki tey niki altine rek daal di nañu rek amal ab ay séjour boo xam rek lu toll ci ah, ñetti fan lay doon fële ñaari fan fële ca sali lañu amal yooyu li waxtaan nag ngir dal di modifié lépp lu jëm ah, ci lii di texte yu parlement yi ngir tamit kii di Ousmane Sonko mën dem ca assemblée national jàkkaarloo ak ñi di député yi amal lii di ab declaration de politique générale. nomination bu Sophie Ninga Sy mi nga xam ne rek euh, kii di euh, porte parole bu euh, présidence daal na ci indi ay leeral moom nag di Ousseynou li ni ki démb ci ab invité invitation bu mu daal di amal fële ab entretien fële ca Walfadjri moom nag yëkkati na ca ay kàddu di jëmale tey xam ne ni ñoom nag liñ doon défendre bi ñuy nekk ci opposition bi muy papa yaay doom du ñu ñëw rek dañuy continuer di ko défendre du ñu ñëw ba toog rek ci bopp réew mi di ko daal di doxal gannaaw ba nga xamee rek dikkaat na ci nomination bu euh, kii di euh, Sophie Ningan si mi nga xam ne rek lam xamle moo di ne nekkul yaayam moo ko daal di tabb ca boobule poste waaye kii di euh, président de la république Bassirou jomaay Faye moom moo ko daal di tànn rek te tabb ko ca boobule post mu nekk rek loo xam ne nii la mu jàpp rek mooy ñoom ñaar ñi amuñu benn lien de parenté bu waral rek ñu mën a dippee ni mel lii di népotisme tàggat yaram ak komba bi doxoon ci diggante Balla ak Tapha Tine gannaaw loolu ñu nemmeeku kii di Eumeu seen ma nga xam ne rek Aziz Ndiaye daal dina dugg ci digganteem ak Balla waaye moom Eumeu nag ma ngay teg ay condition ngir mën a jàkkaarloo ak Balla Gaye ñu nemmeeku ne moom mii di Balla ba mu amee victoire euh, ni ki dimanche bi ñu daal di génn rek la ñu daal di euh, sumb euh, combat bi mu war a bëre ak Eumeu seen waaye noone nag moom Eumeu yëkkati na ci ay kàddu tey xam ne jàkkaarloo ak doomu dubales bi waaye à condition que ñu daal di koy fay lu toll ah, ci téeméer ak fanweer jàpp téeméeri ak juróom fukki million loolu nag la daal di teg ca taabul ba ngir Aziz Ndiaye mën a amal boobule eh, combat. ñu wax ci xibaar yi biti réew dem ca France ab sénégalais boo xam ne rek ma nga fay ah, ma nga fa nekk ba mu fa nekkee ak tey nag lu toll ci ah, juróom-ñetti weer yoo xam ne rek amul fu mu dëkk dafa daal nekk ci ab turu boo xam ne rek sori na lool waaye itam amul lu mu lekk amul lu mu naan moom mi leen nag dafa daal di divorcé ak jabaram lu toll ci juróomi bant yee ñu am jabar ja daf ko daal di yóbbu lu ni mel nag waral muy sàkku rek ana nan lay def pour dellu waat fii ci réewum Sénégal ndax dundam googe moom Ibrahima. fi mu toll ni mitti na lool ba waral nag muy sàkku ñu delloosi ko fii ci réewum la mbokk yi li moo fi ruusoon ci tënkum xibaar cant ak ngërëm na leen ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf.